Sadimou Sissé, monsieur Sadimou le coordonnateur national de l'UNAPAD, l'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable. Wa ci ñu régionale région bu regrouper les trois départements Nous ah, ñu nekkon nak ci liggéey bu régional à savoir toutes les communes de cette localité yu région bu Diourbel ñu def ko maillage ñu am fa ay répondants Tay mu doon bés boo xamante nag ñëw pour dajalé len membre UNAPAD point focaux yi personnes ressources yi kilifa yi dajalé len tay pour tek bureau antenne régionale bu Djourbel lool moo ñu indi fi tay benen question li ma wax moy liñ ci mëna wax rek mooy rafetlu ko d'abord parce que Djourbel zone agricole la bas si bassin arachidier bi la bokk donc mënuñu def dara ci mbay ak épargne parce que ci mbay comme nous ko souvent euh, djourbel daf ci jouer rôle bu am solo bo euh, au niveau du du Sénégal donc nous dañuy rafetlu ñëw ndaje bi présider ko ngir won wax deug yalla doon depuis trois mois euh, ñu ñew féliciter encouragé leen installé leen aussi pour ñu mën a continuer liggéey bi pour mbay mi ak càmm gi ak pêche bi mën a jëm ci kanam waaw ñun dañu constaté depuis des années ay xale lañ nag waaye gëstu yi ñu gëstu ak lu ñu fekkee ay at depuis 1960 ba Sénégal organisé woo état dañu gis ne mbay mi ak càmm gi dafa nekk ci euh, ci dafa dafa dafa dafa stagné ci benn position la toll toujours les mêmes pratiques li nga defoon daaw moom ngay def ren ñu xool ne loolu te mbay ak càmm gi ak pêche bi ñoo war a yóbbu Sénégal ci kanam ñoo war a booster économie bu Sénégal ñu constaté de vraiment dafa am jafe-jafe lu ko indi nag mooy manque d'organisation bu acteur yi ñu ne nag acteurs yi nañu organiser wu ci seen biir jël en charge seen bopp d'abord parce que yàlla yàlla bay sa tool nit ki booy di tàllal loxo chaque jour état wala partenaire au développement dañ dem ba boo leen gisatul doo man a demal sa bopp donc ñun dañu sentir na moment bi euh, baykat ak sàmm ko dafa war a fer dafa a bàyyi tàllal loxo commencé yëfu boppam moom d'abord ci am amu boppam dajale ko bu état ñëwé baxna je pense que sax état day ñëw parce que ay domam lañu ay nitam lañ buñu organiser organisé rek état day ñëw partenaires aussi danañ ñëw mais ñun ban balaa ñu ñëpp di ñëw ñun suñu gën nañu organisé wu dans les coins les plus reculés du Sénégal ci 13 544 euh, villages du Sénégal et quartiers ñu structuré fa ñëw au niveau régional au niveau des départements au niveau national pour que lëkkale baykat sàmmkat ak kii ñu jël en charge seen jafe-jafe yi yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel ci mbay mi ak seen métier yi. waaw solution yi mooy d'abord ñun suñu suñu contribution communautaire mooy dajale suñu yëfu bopp d'abord ba pare nag fexe di amal suñu bopp à temps jiw jiw bu bu baax jiw bu am qualité et di ko démultiplier suñ bopp fas yéene nag créer suñu capital sama wu bopp fexe aussi am. jéem a stabiliser nag yi mooy def ay étable fexe ba nag yi ñu jéem a moderniser changer doxalin bi nga xamante ni pratique yu yàgg sàmm bu métti bi ak euh, ni nit ñi di def wëree fu ne ci sàmm gi ñu mën a ñu am beneen pratique mooy jéem ko moderniser jëm semi intensif loolu ci leen jëm pour jéem a fexe ba adapté wu par rapport ak changement climatique bi aussi parce que ñax bareetul taw bi bëreetul li bari changer na donc doomu aadama bi béykat bi sambu bi il faut mu changer comportement pour mën a euh, changement climatique mën nek opportunité ci mbay mi ak càmm pour mu mën euh, ñu mën générer ay ay ay revenus. voilà la rencontre d'aujourd'hui euh, a pour objet d'installer le comité de pilotage de l'INAPAD le bureau de l'INAPAD comment dire, qui, qui doit diriger l'INAPAD dans la région de Diourbel. Tel qu'il est euh, le cas dans toutes les autres régions du Sénégal. Voilà. l'objectif. Alors, améliorer le cadre de, comment dirais-je, euh, améliorer l'agriculture au Sénégal, l'élevage, l'environnement, mais aussi essayer de faire en sorte que les agriculteurs puissent cultiver, commercialiser avoir le gain de ce qu'ils produisent. Voilà le principal euh, objectif. Euh, je pense que si vous... Voilà, de l'île voilà. Je pense que les problèmes sont nombreux, mais je peux commencer par le manque de semences, par exemple. Le manque de semences de qualité. Puisque c'est vrai, le gouvernement distribue des, semences chaque année, hein, comme il fait chaque année. Mais on constate que souvent, il y a euh, des intervenants, des intermédiaires, qui donnent franchement des, semences qui ne sont pas des semences de bonne qualité. Donc il faut essayer de réajuster cela avec les moyens que nous avons, que nous avons et que nous, les moyens que nous aurons au futur. Voilà, la commercialisation, j'ai dit tout à l'heure, la commercialisation. Bon, on cultive, mais on ne sait pas où vendre la, les, produits agricoles. Donc je pense qu'il est urgent de créer un cadre de commercialisation adéquat. Donc vous voulez que le marché soit ouvert bah, Ça aussi, on veut que, ça soit ouvert, mais voilà, encadré par des lois, par des... Voilà. Ce qui est important, c'est que le producteur soit vraiment satisfait de ce qu'il produit en, termes de, commercialisation. Nous, on ne parle pas d'être servi, servi. Nous, sommes serviteurs. Donc on doit... Est-ce que vous avez suffisamment, je veux dire, de matériel agricole adéquat Voilà, c'est ça. C'est ce, ce que nous nous entendons faire. Nous voulons aller chercher par nos moyens, par nos partenaires, des matériels, des matériaux, des matériels agricoles, et vraiment de faire en sorte que la mécanisation agricole soit une réalité au Sénégal. Ça fait partie de vos objectifs. Exactement. Exactement, mais on parle de l'agriculture, mais on a oublié aussi l'élevage. L'élevage aussi, ça, fait partie de notre, programme. Donc il faut absolument en parler aussi. Quels sont les objectifs en élevage Voilà, il faut avoir un élevage moderne, en élevage euh, qui soit capable de concurrencer les autres pays développés, tels que l'Hollande, pourquoi pas. Vous voulez produire beaucoup de lait et beaucoup de viande. Exactement, de qualité aussi.